sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha ab inspecteur d'enseignement buñ ko joxee temu éducation à la citoyenneté wàccoo nañu ak moom mu rax ci nag di moom tim di doomu dëkk bi jangé fi xam-xam jogé fi dem ba Maroc jang charia al islamia jóge fa ñew jangalé ba jall ci concours inspecteur yi ji mu nekk inspecteur de l'éducation et de la formation bi nekk ci IA de Diourbel di taxaw walu jangalé arab mi yaakaar buñ ko joxé éducation à la citoyenneté jox nañ euh, mbir mi borom. lan moy définition éducation à la citoyenneté la citoyenneté yan dimension la am. ñaareel ba daayira yi kuréel yi daayira yi seen historique wala ci anam bu gàtt tënk bu gàtt ak lu leen tax ak euh, naka lañuy ñuy mën a bokkee ci wàllu euh, citoyenneté bi dugal seen loxo ci euh, ni réew mi di dox éducation à la buñ ko seetee dafay aju ci ñaari baat éducation mi ngi ci citoyenneté mi ngi ci wàllu yar yar nag ci anam bu gàtt dañuy wax rek ni mooy nga ànd ak xale bi ci mboolem étape yi muy jaar di ko gunge di ko socialiser maanaam fexe ba di ko tàggat ci mu mën a dund ci barab bi mu nekk def ci moom ay xiyam mooy ay valeur tàggat ko tamit ba mën dara mën a def dara ca ba na doon koo ay wax rek ki xalaat lay am kon xale bi ñuy and ak mom ci tagat yaramam tagat xelam tagat xalaatinam ak xolam ba mu am ay valeur ay gem gem ak i pas-pas yi nga xamanteni moy yu bax ca yoyu nak mu fexé ba soppi ko mu nek ay jikko ci aw dundinam éducation loolu moko taxaju budé ci l'islam nak dañ ci bolé walu walu diine bi walu diine ji du rek xalmi ngay jël ak yaram bi waye tamit walu pass pass tamit da ci bokk bo jëlé la citoyenneté mon al muwaqana mom xétu comportement la sulukun hadari c'est un comportement civilisationnel comportement la boo xamante ni aw nekkiin aw dundin boo xam ne dafay béral di fésal euh, relation bi war a am diggante doomu réew mi ak am réew doomu réew mi akum réew maanaam ak état bi relation bi war a am seen diggante mu war a lalu ci kenn ku ne ci ñoom ñaar état bi xam li ko war citoyen bi doomu réew mi xam li ko war

ak état mu xam jëflanteem ak état mu mel ne daal doomu réew mi war naa nangu ak bokkam ci réew mi li ñuy wax appartenance am war nangu jëflante ak réew mi ci anam boo xamante ni bu mucc ayib lay doon soppi yëg-yëg boobu mu soppi ko muy ay jikko mooy li ñuy wax al musharaka al amalia la participation participation boobu boo xamante ni ci ay action la koy def kon citoyenneté day mel na yëg-yëg la waaye tamit jëf-jëf jëf la bu nekkee yëg-yëg ba noppi nga xam ne man sénégalais laa ci réew mi laa bokk ci dëkk bi laa bokk ci gox bi laa bokk mu nekk yëg-yëg na la jaral tamit yëg-yëg boobu nga soppi ko muy ay jëf bañ a doon xalaat buy nelaw rekk ci sa biir bopp loolu bu amee dafay dañuy daldi am ay doomu réew yoo xam ne dañu am conscience dañuy am patriotisme dañuy nekk ñoo xamante ni tamit duñ yàccaaral moo tax ku mel ne Mandiaye Guèye ci téere boobu ñu tuddoon di wax ni la citoyenneté li ko tax a jóg daanaka mooy former des citoyens conscients patriotes et bâtisseurs doomu réew yoo xam ne dañu am yëg-yëg ci seenu bokk ci réew mi bëgg seenum réew mu jaral leen lu ne ñu teg ko ci kaw lépp ba noppi doon ay nit yoo xam ne du ñu yàccaaral waaye dañuy yëngatu ci lépp luy génne réew mi ci ay jafe-jafe jëmale ko ci ak yokkute kon buñ boolee ñaar yooyu at tarbiyatu ala al muwatana dañuy daal di wax ni daal da du du rek am njàngale joxe ay xalaat nii rekk ci la waaye tamit dafa mel ne yar nit ki ci ay valeur la kon du doon tarbiya maarifiya waaye dafay nekk tarbiya qiimiya yar nit ki ci ay valeur yoo xam ne da koy dund mu bañ a doon ab théorie bañ a doon tamit ay xalaat rek bu loolu amee dañuy am chance am ay doomu réew yoo xam ne dañuy jàpp ci doxeenu réew mi ci anam bu am démocratie démocratie nag buñ koy wax foofu mooy ñi ëpp ci nit ñi lañu bëgg fañ jëm ñu ànd ca ak ñoom bu boobaa groupe bu ndaw duutu njiiteete réew mi kenn nit du doon buur di buum di bummi waaye dafay doon am réew moo xamante ne la koy doxal mbooloo mi ñi ëpp ci nit ñi lañu bëgg loola lañuy ñuy sàmmanteel kon état du doon du nekkati ci yenn loxo rek loxo kenn nit wala loxo benn parti waaye dafay ëmb ñëpp euh, boole ñëpp waaye tamit day tax pouvoir yi am ñett pouvoir yi ñu xam muy législatif exécutif ak judiciaire ñett yooyu yëpp duñ duñ leen influence benn bu ci nekk dafay moom boppam dafay am li ñuy wax indépendance di def liggéeyam ca kenn du ko mën a manipuler di ko defloo lu mbuur ta def nguur gi tamit nañ koy jokkalantee dafay nekk ci anam bu pacifique ci jàmm la war a doon ba noppi leer ca kenn ku ci nekk ci doomu réew mi man cee wax xalaatam nam ko bëggee mooy alternance bi kon dafay nekk alternance pacifique libre et transparente loolu bu amul mooy ni doomu réew mi seen taxawaay ba léegi dafay des loolu nak su amé day tax doomu rew mi kenn ku ci nek xam liko war ci anam yépp xam lan moy akam ak yelleefam ni muy sàkkoo ay akam ak yelleefam mu diko baye xel ak ak yelleefu mbolo mu mu am équilibre digënté intérêt l'intérêt général ak intérêt personnel mu fexe ba ni muy samé ay akam ak yelleefam mu di ko sàmmee àqi mbooloo mi kon lépp lu mbooloo mi am du ko jéem a këppoo moom kese lépp lu mbooloo mi bokk du ko yàq te lu man ci sàmm ko dana ko def bu boobaa yi ñu dégg ci sunu réew mi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw di jiite bis bu set ñu leen di dégg ñuy xastante lu ne ñu di ko tuumaalante ñuy jàpp ay njiit ci ni dañoo lekk alalu mbooloo mi bu boobaa yooyu yëpp bu fi jógee tit dana wàññeeku légui nak yane dimension la citoyenneté bi am yane dimension man nañu wax ne rek ci walu politique amna walu politique ak yoon al bu'd siyasi wal qanuni amna tamit al bu'd al ijtimai wa thaqafi amna al bu'd al iqtisadi ci walu politique ak doxaliinu yoon loolu réew mi war naa xam euh, euh, nit ku kenn ku nekk si ñun war naa xam lan mooy àqam ak lan mooy warteefam comme niñ ko waxee woon sànq ba tax buñ tollee ci wàllu soppi njiit walla euh, jongante yi ñëw kenn ku nekk bañ a sobantal loolu xam ne ëllëgu réew mi dafa aju ci kartam moom dafa aju ciw kartam loolu nag firiwut ni Euh, daayira yi euh, politique moo leen tax a jóg waaye dañoo war a am taxawaay boo xamante ni war nay fës ci biir politique bi ci cosaan nag la leen lal du doon wàllu politique looloo tax sax ci yoonu murit néewaana man xawuma ko ci sax parti euh, wala daayira bu impliqué wu ci politique bi ba fës waaye nag ci sunu Eh, yeneen daayira ci yeneen yoon fii ci Sénégal gis nañ ci daayire yoo xam ne moom dañuy def prise de position ci wàllu politique di joxe consigne de vote di joxe ndigalul woon waaye bu dee ci yoonu murit fesu ci daayira yi seen rôle ak seen liggéey feneen la gën a fese teewul nag bu vote jotee danañ vote en tant que individu mais di joxe ay consigne de vote fesu ci moo tax ñoom seen liggéey moo gën mi ngi gën a fese ci wàllu social ak wàllu culturel ak wàllu économique bu dee ci yoonu murit laa wax loolu it euh, ci wàllu social euh, am na ci ay taxawaay yu bari yoo xam ne danañ ci dikkaat ci wàllu économique tamit am nañ ci taxawaay yu bari yoo xam ne dañ ci dikkaat waaye ci ñetti anam yooyu moo gën a fës ci daayira ci yoonu murit ci wàllu social bi culture culture bi wàllu économique euh, ñoo ci gën a fës

ay mbooloo la yu bokk lu ñu gëm ànd ngir jëmmal bennoo ak dimbalante ngir jëmmal bennoo ak dimbalante ca bennoo boobu ak dimbalante boobu yàlla ko santaane yàllaa ko santaane kilifa yi diine yi ñëw gën koo feddale daayira nag dañuy ñi ñi bokk lu ñu gëm ñooy bokk daayira loolu mooy cosaan bi bëgg a dimbalante ci seen biir waaye tamit liggéeyal sëriñ bi mooy li ñu wax xidma kon saa buñ koy taxawal seen yéene mooy dimbalante ak liggéeyal sëriñ bi loolu mooy cosaan bi waaye danañ gis ni xidma boobu dafay jéggi ñoom ci wàllu njariñ fuñ ko foogewut sax ci ci ci seenub liggéey daayira yi ci seen wàllu historique bo delo ci téere bi docteur Khadim sile bind da ngay gis ni année 80 1941 40 41 ci la ci la feñ ci la feñ Serigne Cheikh Gaynde Fatma mo indi khalat bi Cheikh mohammed Moustapha mbake mi fi nekkoon ñu yoonu murit ci jamono yoy yalla yalla doli leer ci ñom ñaar ñep ak mbolem ñañ fa fekk ak ñi leen fa fekk ci ay jullit ci ak mom ngir rek jëmmal bennoo bi yàlla santaane jëmmal dimbalante mu am ay jaaruwaay yu bari waaye yooyu duñ ci taxaw lu bari loolu it dafay mel ne euh, dafa am évolution dafay gën a yokkute da cee am ak jëm kanam da cee am jëm kanam da cee am ay spécialité da ciy am am na daayira yoo xamante ni ñi ngi jëm ci wàllu euh, spécialité yi tax mi ngi aju ci métier yi léeg-léeg léeg mu aju ci activités yi jëf yi ñuy def da nga gis ñoo xam ne ña seq daayira ba ñëpp wala ñi ci ëpp ñoo bokk liggéey dawalkat sareet yi jàngalekat yi soldaar si ak ñuy liggéey ci ministère sàngam yu mel noonu da ngay gis ci wàllu liggéey bi am na ci ñoo xam ne ñooy bokk benn liggéey taxawal kuréel ngir feeñal seen taxawaay ci liggéeyal Serigne Touba am na ci ñoo xam ne bokkuñ ay liggéey waaye activité bi moo leen ràññale ak ñeneen moo tax ñu gis ay daayira yoo xam dañuy yëngu ci xam lu mel ne que ak yeneen yu moom gis yeneen yoo xam ne dañuy yëngu ci luy doxal ci luy euh, sàmm valeur yi ak nekkeen wi muy yarbe ak warmay dëkk bi lu mel ne safinatul amaan lu gis yoo xamante tamit dañuy liggéey ci wàllu ordre nizam bi ci wàllu jumaa yeeg ak yeneen kon bu ñu xoolee métier yi dañuy gis ne am na daayira yoo xam ne métier ca leen gën a ñi ko bokk dañuy dajale seen àddee dem joxe ji ko am na ñoo xamante ni bokkuñ métier waaye activité bi moo leen boole te ñaar yooyu lu ci ëpp dañuy xaw a jokkoo ci seen biir fu mel ne que wilaya yi gis nañ taxawaay bi ñuy def ci wàllu xam-xam yi ci wàllu xam-xam ak ci yeneen wàll rawatina ay social ak yu mel noonu daayira yi nag bari lool ba fu mu nekk nii xam lim bi jafe na waaye buñ delloo ci téere xadim si la boobu may wax buñ jëlee daayira maam jaara yi rek fondation maam jaara yi moom ay daayira moo ko moo ko ci la aju waaye lu tolloog ñaari junniy daayira mi ngi ci boo xoolee membre bi te loolu 2006 lañ ko taxawaloon membre yi egg ci 60 000 membres loolu dafay joxe xalaat rek ci ne daayira yi seen lim fu mu nekk nii kenn xamut nu mu toll kenn xamut nu mu toll ci ñépp nag li leen di tax a jóg mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaye ci biir liggéeyal Sëriñ Tuubaa boobu ñu ngi ciy liggéey yaaleel askan wi ñu ngi ciy liggéey yaaleel askan wi kon li leen tax a jóg benn la waaye lañuy def mën naa wuute activités yi mën naa wuute ci noonu buñ xoolee daayira yi comme ni ma ko waxee woon wàllu politique bi moom fesu ci ci yoonu murid waaye ci wàllu valeur yi ak ci wàllu social wàllu culture moom fes na ci lool loolu nag mu am ci taxawaay bu am solo boo xam ni doonte bañ koy def yéene liggéeyal Serigne Touba lañ ci yéene am waaye njariñ li dafay law weesu ko dem ci yeneen mbokki sénégalais yi ak yeneen mbokki euh, doomu aadama yi nga xam ne dañuy dund ci suñu réew bu jëlee ci misaal daayira bu taxawal hôpital hôpital Fawzeyni wala beneen hôpital wala dispensaire walla centre de santé daayira bi bi mu koy taxawal daf ciy laaj ndigal ba noppi di ci dabu ngërëmul Serigne Touba ak liggéeyal waa dëkk bi waaye doone ma hôpitalu hôpitalu Fawzeyni waa Touba rek ñoo ciy faju fu ne ci biir réew mi ñu ngi fay jóge di ci faju kon liggéey bi sëriñ bi lañu ñu dabbu ngërëmam waaye njariñ li da koy weesu di dem feneen daayira yi liggéey ci wàllu xam-xam doone ma bu ñu bindee téere wala ñu génne ay ay majallaat ay revue doone ma day yam rek ci membre yi waaye xam-xam bi dafay law ba dem ci feneen fuñ ko foogewul buñ taxawalee ay conférence xam-xam bi dafay jàll ci rajo yu ak jumtukaayu yu xarale yu bees yi egg fu nekk soppat yi mën naa dem ba egg sax ci koo xam ne dëkkul sax ci biir réew kon ci wàllu wàllu boobu dundin wi ak wàllu culture bi dañuy am taxawaay bu am solo ci sàmm li sëriñ bi daa li sëriñ bi indi woon ak nim daa dunde te loolu ñoom daayire mën nañoo wax ne ñu ngi ko jëlee ci sëriñ bu mag bi sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu am na ay taxawaay sit ay action citoyenne yoo xam ne mu ngi ko doon def ca jamono ba mu ko doon def ñi fi nekkoon ñoom noonu lañ ko jàppewoon muy tubaab bi jamono bi franc français amee jafe-jafe ca booba yóbbu nañ ko mu génn ba dikkaat jote nañu moom ngir wuute gisin wute gisin ci wàllu doxeenu àdduna barki démboo Njaay si Fallou bu sami mi nga wax ni Serigne Touba julli ak woor boole bu ko tubaab yi muy dëgg kon wuute projet de société moo ko boole woon ak tubaab bi bañ génnee ko waaye bi mu ñëwee franc français am jafe jafe-jafe da cee joxe woon lu tolloog 500000 ca jamono yooya loolu action citoyenne la ndax ba mu koy joxe euh, du ne dafa ànd ak ñoom ci xalaat. du ni dañoo bokk luñ gëm duni dafa jàpp ni sénégalais yi rek ñoo koy jariñoo waaye dafa xam ni doomu aadama yi ñooy am jafe-jafe bu franc francé amee jafe-jafe jafe-jafe boobu dafay feeñ ci dundinu doomu aadama yi te moom doomu aadama yi nekk ci jàmm moo ko tax a jóg mu dugal ca xaalisam lu tolloog cinq cent mille loolu di lu ama ama am solo loolu daayira yi euh, euh, euh, mën nañoo wax ni ci sëriñ bi lañ ko jële jamono bi ñuy taxawal tamit jumaa njaareem bi sas woowu ñu doon sase biñ noppee ba jébbale ko moo ñaar fukk ak juróom ñett yooyu biñ noppee ba jébbale ko daf leen a wax ni ne bu ëllëgee lu mel nii bu teewee na ngeen ko defee lu mel nii de leen sukkandiku ci seen bopp ndax ngeen mënal seen bopp ci aajo ju mel nii bu teewatee ndax sudut loolu keneen dana leen manal te ku leen manal sañal leen te yàlla na doon ku leen war a sañal muy lu ama am solo loo xamante ni daayira yi dañ koy jële ci dundiinu sëriñ bi nga xam ni moom am na ay taxawaay yoo xam ne buñ ci eggee duutu xoolati kii taalubeem la wala kii jullit la waaye doomu aadama lay gis ci kanamam def ci taxawaay bu ama am solo loolu ñi ko fi wuutu woon ñoom ñëpp def nañ lu ni mel Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké bu defee xëccee raay bi jële ko njaareem ba Touba ngir liggéeyal Serigne Touba ci jumaam ji yéene jooju la ciy am waaye doone ma raay ba xanaa ay murit ay taalibe rek ñoo ko ñoo cay jaar déedéet loolu action citoyenne la bu ama am solo jumaa ji mu taxawal ngir dab euh, ngërëmul Serigne Touba doone ma ay taalibe murit rek ñoo ciy julli kon dafay am ay taxawaay yoo xam ne bu ko daayira yi dee def dafay weesu sax seeni membre weesu ñi dëkk ci seen quartier ak ñi dëkk ci seenu gox waaye bépp doomu aadama daf cay mën a jariñoo muy lu ama am solo loo xamante ni lu mat a bàyyi xel bu daayira fobe aw yoon def ci ay làmp éclairage public doone ma taalibe murid yi rek ñoo fay jaar déedéet mboolem doomu aadama yi jaar ci yoon woowu yépp dañ ciy jariñ kon loolu action citoyenne la bu am solo daayira yi di ko def ak centre culturel yi ñuy taxawal kon yooyu yëpp ak dimbalante yi ñuy def ci biir réew mi ak ci bitim réew rawatina sax ci bitim réew ci jàppale nit ñi ci ay jafe-jafe yañ fay am ci wàllu dëkkuwaay ak ci wàllu seen digg ak administration bi yooyu yëpp dafay doon yu am solo yoo xamante ni action citoyenne la yoo xamante ni daayira ñu koy def léegi nag loolu. dafay ànd ak yëg-yëg dafa war a ànd ak yëg-yëg bi ñu ci yar membre yi daayira nga xam ni jamono bu ñuy def dara yéene yi am ngërëmul Serigne Touba ci xidma mooy tax waaye nañ ci fasaale yéene yi liggéeyal réew ci seen yoreenu daayira tamit soppat yay am ci njiit yi ñuy fexe ba muy am ci anam boo xam ne comme ni ko sëñ Fallou waxee ñu am règlement intérieur lépp leer ba nga xamante change changement yi njiit du indi tasub daayira bi du indi xàjjali ko du indi am ñu fak sosat seen yëfi bopp te da fay doon lo xamne faaw ñu yar ci nit ba ku jité ku nek nga nango wacc bu sa wàcc jotee euh, règlement intérieur buñ taxaw taxawal bu nek ñepp war caa tënku lolu suñ ko tamé ci daayira bi moy tax ci seen dundu ci biti ñu man ko nangu ci yépp xamne li ñepp bok kenn ku nek sa walang ci ci sam ko ak ci jëmele ko ci kanam lolu buñ leen ci yaree ci bir daayira bi day tax buñ ci bir dund gi ni ñu am ñu am euh, habitude bi nangu ko bu soppi joté day yomb lepp luñ leen di lepp lo xamanteni biru mbiru rew mi la ñu man ko xam kon pour tej dañuy wax na ni éducation à la citoyenneté dafa doon lu am solo doon lu munta ñàkk tamit suñu bëggee suñu réew mi jëm kanam ci anam bu matale ci anam bu yaatu li ñuy wax développement durable faw mbooloo mi dugal ci seen loxo ndax état mënut lépp kon société civile bi ca daayira mën lañ leen a dugal ci cadre boobu war nañoo gën a am taxawaay ci l'action publique maanaam saa bu ñuy tëral loo xam ne dafa laaj dafa askan wépp la soxal faawu askan wi war nañ cee joxe seen xalaat buñ koy jëmmal di ko amal mise en œuvre askan wi war nañ cee dugal seen loxo évaluation bi tamit mooy xayma bi askan wi war nañ cee dugal seen loxo te loolu lañuy ñuy tuddee le contrôle citoyen waaye su fekkee ne yow da ngay taxawal da ngay samp benn député mu dem assemblée nationale sa yoon nekkatu ca mom ma fa nek tamit njariñul bopam rek ko fa bayyi lolou bu boba euh action citoyenne bi le contrôle citoyen du mën nek lolou tamit nguur gi warna ci am taxaway bu am solo ci lepp lu muy def bepp responsable buñ tek ci barab na xam amna amel na askan wi liñu wax reddition de compte manam warna leena rendre compte ci limuy def ndax limuy def ñom la koy defal ci ñom ñoko fa tek te ci xaalisu askan wi lañ koy fay kon loolu daayira bi su amee taxaween yu mel noonu dañu am doomu réew yoo xam ne ñu baax lañuy doon amul yëg-yëg ci seen warteef waaye yëg-yëg yooyu dañ koy soppi ay jëf ak dundiin ak nekkiin te loolu day tax euh, réew mi gën a jëm kanam day tax tamit loi bi ñu teg ñëpp sàmmonteeg moom luñ ci bëgg a soppi ñu jaar yoon wañ war a jaar ngir soppi ko ca fippu ak rébellion yooyu yëpp du am ndax day fekk ñu yar leen ci nangu yoon nangu luwa boo ca àndul nga fexe ba seet anam bu légal pour ñu soppi ko loolu nag ñi ciy taxaw bokk na ci njaboot gi war nañ ca dugal seen loxo mooy njaboot yi famille yi l'école bi war na ca dugal loxoom gouvernement bi war na ca dugal loxoom parti politique yi tamit war nañu yar seeni i seeni militan ci loolu presse bi média yi war nañ ca dugal seen loxo société civile bi lépp daal ak daayira yépp mbooloo mu nekk la boole war nañuy gëmloo seeni i membres ni réew mi moo nekk ci kaw lépp su ko defee ñu tàmm tënku ci yoon lépp lu ñuy def ñépp ah ñépp dugal ci seen kàddu dugal ci seen loxo ba ay frustration ak i mer du ci am ak xeex ak xuloo ki ŋaayoo du ci am lépp ñu koy waxtaane loolu suñ ko dee def yaakaar naa ne daayira yi bu boobaa euh, duñ yem ci am ngërëmul Serigne Touba waaye dañuy bokk ci ñi nga xamante ni ay ñu am activité la ñuy doon ci seenum réew ni muy doxe ak ni muy jëme kanam kon loolu yaakaar naa lu ci am solo la euh, dafa mel na waxtu wi ñu ma cërale woon mi ngi jeex kon mën nañoo taxaw foofu di jéggulu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah ok jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Mbacke ci leeral gi ñoo ngi jéggulu mbokk yi bu baax a baax ci temps bi xam naa ne dese na tënk lépp njariñ la euh, tënk bi du sori ndax euh, xam nañ ne waxtu mayu ko mais dama bëgg a jaar rek tuuti ci li nga xam ne ñëw na ci ci wàllu éducation à la citoyenneté citoyenneté ci boppam la njëkk a leeral ne moom mooy dugal sa loxo ci dox doxinu réew mi waaye loolu daf cee dellu si ne dafa am ay problème problème yi koy tënk yëpp mooy citoyens yi dañuy xaar lépp ci état ñu bare bari ci citoyens yi dañuy jàpp ne seeni solution lépp ci état lay jógee loolu nag mën leen a jural beneen comportement boo xam ne mooy désordre ak anarchie kenn ku nekk di doxee sa sago ak nam la neexee loolu mën a indi ay rëq-rëq yu bare bare loolu mooy pàcc bu njëkk bi ci waa waxtaanam bi ci des dikkaat na ci daayira ak apportam ci wàllu euh, éducation à la citoyenneté te mu dellu si ci bu baax a baax wane ne citoyenneté ci boppam euh, euh, définition bi benn comportement civilisationnel la diggante doomu réew mi ak état bi nga xam ne mooy saytu doxinu réew mi loola samp ci ay warugar ak ay sañ-sañ ak ci yenn valeur yoo xam ne liberté ca la équité ca la ak yeneen ak yeneen kon euh, ci historique daayira it xam xamal nañu ne daayira yi am nañ cosaan ci li ñuy liggéey ci wàllu action sociale ak action citoyenne mu wax ci lu am solo muy li nga xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu euh, am na taxawaay bu am solo bu taxawoon ci wàllu euh, franc français loolu xam naa ne mbokk yi na ci dikkat baax ak ci wàllu tabax jumaa ji ak ñi ko fi wuutu euh, yen action yi nga xamne dañ ko def te jariñ li yamul ci talibé yi doom way ci ñëpp lay dem kon ay point yu bare bare bare yo xamne seigne Cheikh dikkaat na ci te lépp likoy koy moy ñu fexe ba yar nit ñi jàngal leen ñu xam seen warugar ak seen sañ-sañ ndax loolu en tant que éducateur en tant que inspecteur jàpp na ne loolu it insisté na ci bu baax a baax mooy ci wàll ci volet éducation ak volet enseignement loolu woo na ci non seulement famille yi waaye woo na ci état bi woo ci daayira yi woo ci parti politique yi ak syndicat yi ak kenn ku nekk mbooloo ma nga yor nga fexe bay yar sa ñoñ ci ñu xam li leen war ci doxinu réew waaye bi muy wax tuddoon na benn dimension ci dimension citoyenneté muy dimension économique foofu nag la intervention de l'économiste Mbargo yi amee solo te mu war ñoo dikkal ci benn point bu am solo muy la transformation euh, professionnelle kon dañ koy jox kàddu gi mu dikkaat ci point boobu xam naa ne waxtu yi nee na may nañ la trente minutes euh, <laughs> bari jërëjëf euh, maa ngi leen di gërëm di nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu sëñ Ahmadou Makhtar yàlla teg ci kër gi man ci kër gi laa bokk dama koy wax euh, di nuyu tamit sëñ Muntaxa ak di nuyu yoonu murit bi démb dama nekkoon ci benn conférence Maroc dama doon def benn conférence boo xam ne sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te faale ko wuy seek farjëkki Moustapha su fekkoon da laaj carte say candidat wiiw